ku forsa ñàkk ku forsa ñàkk ku forsa ñàkk li muy bëre waale bari na moom laay laay la laa def ni ñaari mbër am jé a ah, jël na ko ma ngi koy xar jëppet bañ na ma ngi koy xar jëppet bañ na ma ngi koy añ bañ na ama tërëf na léegi laay laay la laa guy gaga maa bal de tekk la lamb ji laaj guy gaga maa bal de tekk la a ana guy gi jàppal ba mu dëgër nga sànni na tànk na ko ama xar jëppet na ko ama xar jëppet na ko ama xar jëppet na ko sotti bañ na 19 heures 51 maa ngi may wax ni léegi heure émission ama ama añ na ko ama añ ko guy gi bañ na ama koy yanu ama koy yanu guy gi bañ na laay laay la la laay la bañ na action boo tenté quatre fois ñëwaat tenté ko trois fois ko forcé bu ko forcé changé doxal waru ko forcé ou bien nga ko ba xam waru ko forcé guy gi jàpp na guy gi jàpp na koy bëtt bañ na ah bi yoon lu lu lu guy gi lal ama lali ko. nii la bëree bëree ngoog. laay laay la laa. waxoon naa la pexe mooy. la laa laay laay la tante yëpp dafa bañ. waaw waaw waaw waaw. tante ama bañ. ñoom ñaar a ngi na teg gis naa kur bañ léegi ñoom ñaar jegante nañu bàcceer. tegante nañoo laaj Thierno Ndiaye lu mën a am fii. lu ne mën naa am. guy gañ koy yenu. guy bañ na. guy gañ koy yenu ama bañ na. ama bañ na ba pare. guy gañ a yenu ama bañ na. ba taf ko nag. waaw da ko taf. guy gi xam la caayam mu bañ. waaw waaw waaw. ñaari bërekat tamante nañu guy guy. ama ngay door. ama ngay door ca ndodd li. ama ngay door ca ndodd li. guy gañ na tekki ana tekkum biir ana tekkum biti amaa ngay door mais guy gaa ngi jàpp rek taxaw. parce xam na su jàppee xam na ni muy am. laay laay la am na waa amaa dinañ ko jox avertissement daf ko dóor ci ndodd daf ko dóor ci ndodd dinañ ko jox avertissement. guy gaa ngi koy woo nee na na ñëw. bi sifflé na seen diggante. ñu ngi léew too guy gi dellu na ginnaaw cof suuf raxasu ama dox wuti ko tente nañu léegi ca loxo ca kaw xam naa ne ñoom ñaar ñemente nañu ama ama daw na ko sangu songum yóotu la ama añ na ko ama añ na ko guy gi daw na ama añ na ko guy weñ na lay lay la ma ngay door guy gaa ngi door ama guy gaa ngi door ama guy ngay xeex laay laay la la forcé action guy gaa ngi ree. ku forcé action ñàkk waaw ku forcé ñàkk de. naa ko bu yàgg ku forcé ñàkk de Alaaji Cerno Njaay. te bis bee rëy. waaw waaw bis bi rëy na arbitre. ku ne say mbokk nga. laa ilaaha illallah. xasante ñoom ñaar. Ah, lu mën a am ñoom ñaar bëri nañu. allahu akbar atta nañ leen. ñoo ngi leew too. ñoom ñaar ñëpp dañu koo frais. ñoom ñaar ñëpp dañu koo frais. ñoom ñaar ñëpp am nañu suuf am nañu fond. ñoom ñaar ñi nga leewaatoo Alaaji Cerno Njaay waaye ay Cerno sama bopp bi ni muy méttee jaaduwul. yal na ko yàlla saafara amiin yaa rabbal aalamiin. amiin yaa rabbal aalamiin karil nga ma nekk. dañ naan li ñuy xaar yàlla may ñu ndam quoi parce que kii tey gisuma nan la mun a daanee ama quoi buddi la te attanu ko kii luñ ko nar a def jël bu rëy maa doo am dara dañ koy day dee ama daa asma ama daa asma daa xoox ay jàkk lay àndal lii dañ ko préparé bu yàgg combat bi day dire guy gi jàpp ko daan ko barke Serigne Babacar diggante seen diggante première mi-temps bi dem na deuxième mi-temps lañ nekk mais juge bi na jonkam guy gi dox naag moom ca lang ga aman ko topp guy gi moom ca ga aman ko waa guy gi na ci suuf si sa tànk guy gi foo foo wees na ama jël na tànk bi ama jël na tànk bi ama jël na tànk bi ama jël na tànk bi ah wandal na ko bañ na laay laay la laa guy gi waaye lii lan la waaye lii lan la añ na ko añ na ko bañ na ah laay laay la la laay laay la la laay laay la la laay laay la la laay laay la la ña nga ca suuf ama moo tegoon benn tànk bi ci suuf ama moo tegoon añ na ko bañ na añ na ko ah guy gi daan na ama guy gi daan na ama balde guy gi daan na ama balde jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu demee Demba Diop deuxième édition drapeau élage Hadji Bécaye mbay guy gi jël ko euh, yemul ci drapeau waaye da ca boole oto te loolu defe naa ne te Moussa jàmmee ak Double S la ñu gëj a gis oto ci lamb euh, su ma juumul El Hadji Bassirou Diagne grand serigne moo leen ko tegaloon benn marque Brisa euh, ni lañ ko indi woon ci stade bi Double bi mu bi mu daanee noonu la duggee ci oto bi je pense que loolu amoon na fi booy xool tey trente cinq ans boo xoolee ba trente ans Euh, seen doom bëriwaat ko diggante guy Gui ak Ama Baldé mu doon lu neex lu rafet combat bi nag gis ngeen ni mu demee ñu mën cee jàngat lu bari ñu mën cee jàng lu bari ci combat boobu parce que combat boobu ah dañ ko bëree woon ca jàkkaarloo ba ca la commencé woon am lu ñu fa lancé ca jàkkaarloo ba euh, dama ne woon guy gi def na erreur te loolu erreur la aussi am na foo xam ne athlète de haut niveau boo fa tolloo ngay bëri ñu lay fay waroo bëri di maye. bëri di may déedéet dafa mel ni tey ñun ñii di def émission bu fekkee ne grand place bu nekk ci biir dëkk bi ñu dem fa di wax di waxtaane làmb kon jaratul ñuy seetaan ci télévision yi nit lépp lu koy jox teraanga daf ko war a defee fa nga xam ne fa la ko jaree woykat bi bu fekkee mbedd mu mu toll woy fa bu ëllëgee bu wootee Sorano kenn ko fa fekk kon je pense que guy gi erreur boobu man dama ko ci kon am ne woon loolu waru ko def moo daan waaye loolu ba léegi erreur la ci moom parce que champion bu toll ni moom walu bërintu ci ay ay ay ay strade ak yu mel noonu kon je pense que rectifié na ko parce que boo xoolee guy gi mobilisation bi mu daan def xaw na wàññeeku ci combat bi parce que ay supporteram dañu woon ci doute daf leen parce que guy gi moo jëloon combat bi yenn ko yenn ko boppam combat boo xam ne doon na gën a facile ci moom mais guy gi dafa jël combat bi yenu ko bi mu yenoo combat bi euh, vraiment loolu day loo xam ne euh, euh, baaxul baaxul parce que bu mu ko dalati parce que ñi nga xam ne ñooy sa ñooy sa ñooy supporter da nga leen di jox confiance da nga leen di jox confiance mais heureusement que rectifié na ko gis nga ni ñu bëree bëri bi combat bi à l'usure la ñu dem Ama Baldé boo xoolee combat mi yëpp du passé trois ba quatre minutes jàpp sànq. combat bi mu ko njëkk def bu passé cinq minutes mook nees sa ko def dafa daanu kon je pense que jàngat amoon na foofu ci préparation parce que boo nattee nees rek daanaka mooy guy gi ci mbër moo xam ne dafa am xadar mbër moo xam ne day déplacé buy bëree muy guy gi kon amaa am na loo xam ne aussi war nañ ko seetaat ci moom ci wàllu physique parce que loolu ci physique bi la ak ni nga tàmm entraîné parce que voilà comme comme comme dafa dafa day mbër moo xam ne bii dafa aspiré wu dugg ci cours des grands ah war nañ changer ni muy yokkaat pression entraînement am ba nga xam ne koofram day gën a mën a dékku combat te je pense que guy gi lii mu ñam nii bu ko continuer euh, je pense que euh, dina gën dina gën a am am am ay performance ci kanam di ko féliciter bu baax moom guy gi Elton yaakaar naa ne combat boobu am na loo ci mën a indi waaw bëri nañ ko guy gi bëri na ama fournir na lu bari ngir bëgg a jeexal combat bi guy gi may ko ko mais am na am na am na reculer yoo xam ni tamit ndax sa adversaire ba daan ko kon guy gi yaakaar naa ne bien fait ni mu bëree ba daan loolu la loolu la mbër def comme ni ko ni ama tamit da doon wut pour daan mais wut na pour daan ñëw na dafa ñëw na dañ koy encouragé rek di félicité guy gi. ku mhm. wax beneen yoon mu toppaat entraînement ba daanaat ci làmb mhm. loolu la. Ah, ba daanaat ci làmb Ama aussi ñu ngi koy encouragé di ko wax ñàkkul dara ci làmb Falaye Baldé mu jur lii dal na ko daan na ay moromam yëpp bés ñëw ñu daan ko kon je pense que dafa war a defarwaat rek te ñëw te fexe amaat combat euh, feeg déwén parce que tamit am na mbër fu moo xam ne fa tolloo dafa war a aj loolu ñuy wax ngembam waa aj ngembam jot na. ñu bàyyi ko mu décompressé wu tuuti ñu préparé ko déwén et puis ama euh, dama ne nañ ko préparé hivernal bu gaaw hivernal pour début saison bu mën a dugaat ci biir komba loolu c'est important xale la yaram bi nangu na doole boo xoolee karkaasu ama da ngay bëgg mbër et c'est un lutteur boo xam ne dafa neex a bëgg ci ambiance dafa neex a bëgg ci bëre ba mais nañu gën a dolli puissance am puissance bi rek moo des buñ ko delloo combat bu demee vingt minutes avant mën na ko dékku euh, je pense que tamit ci biir combat bi la mu fournir ca loxo ba loxo ba la mu liggéey ci loxo baa bari la mu liggéey ca loxo baa bien vrai que doon na dóor ay caxabal pour euh, pour pour pour euh, caxabal guy gi waaye guy gi centre de gravité guy gi moo doy waar parce que guy gi dafa am côté boo xam ne doole ji def ca concentré wu moo tax gis nga combat bi nii mu demee ama xeex nañu xeex boo xam ne mais nag jël na coup jël na ko guy gi boo xam ne bokk na ci li wàññi parce que mooy bi mu bi mu barasta ko rëpp ba bëgg jóg guy gi la ko fa fekk ak épercute kooku c'est important te loolu bokk na ci li ko duuteloo ca ca fin ba kon je pense que euh, guy gi ñu ngi koy féliciter euh, ci combat bi ah di wax ne nag ah am na ñu ne ci kanamam ñu ne ci kanamam je pense que ah mën naa def daal genre gisaane genre gisaane waaw man du ma gisaane pettaaw yi dañ ma ne ku mel ni njoon je pense guy gi njoon war naa neex guy gi baay ma njoon war naa mën a am war naa neex mën dama def ne combat boobu baax na ci guy gi baax na ci njoon waaw baax na ci guy gi baax na ci njoon waaw mais nag ah amateurs yi ak promoteurs yi ñoo ñoo yor jeu bi euh, mais gis naa ne ku mel ni guy gi ak njoon combat la parce que guy gi toll na nag ci dégmal ñoom bàyyi ma njoon muy ay combat yoo xam ne ñu ngi sunu kanam euh, mbokk mbokku téléspectateurs yi ginaaw loolu euh, noonu la ñuy jaare nag dem stadium Iba Mar Diop ak euh, Abdou Fall production Tyson numéro 2 doon fa dajeeg fii si sant. yéen a signé loo seen ménager contrat yi remplir leen seen contrat lu contrat bañ bañ leen ko arbitre sifflé a génn seen diggante Tyson numéro 2 Tay Shingo tànku càmmoñam la jiital di seen jiital tànku ni jooram Tyson 2 dem na ci kawam xeex ak moom ci songu ko fefte intercepté ko rasu ñoo nga ca kaw saaku yi benn ko tëgg na ko ci suuf arbitre bi sifflé na arbitre bi sifflé na nee na ngeen génn géew bi nee na génn leen géew nee na ngeen génn géew bi arbitre bi sifflé waat na seen diggante arbitre sifflé na seen diggante génn ci Tyson 2 dox na ci ko am Fifty daw na di ko song Tyson 2 tibb na ko rasu na téye na ca ngemb la moom Tyson 2 lan mooy am ronni na ronni na Tyson 2 moom Fifty Tyson ronni ko fëggante nañ ko metti na metti na Tyson benn na ko benn na ko bay na ko ba toog ci dënn bi bay na ko ba toog ci dënn bi Tyson ñoo ngi leen nii maa ngi leen di fay père Tyson noo ko daane non jogoon naa ko daan sax maire bi moo si jàpp dama ko téye lool ko muy dem pour jogaat saa ko téye muus ko première chute bi loo gisoon daan la noo ko daane woon. dama ñëw jël ma tël ko. fes bi tegu suuf. nga dellu si nangoo bëri deuxième action. waaw. noo ko daanaate. dama ko téye mu ñëw. ma dóor ko épicure mu jox ma roof ko sol. muy bugg a dem ma puus ko mu dem. foo jëm. xam nga ko. yaa ma ko xam. ngeen ko. wax ko xam ko père. coow ko yéen a suñu commentaire. coow ko xam ngeen ko. Tyson 2 ngi. Eh, jërëjëf eh, yi ginnaaw bi ñu demee. Eh, lundi ci Pentecôte bi ak Abdou Fall production Tyson numéro 2 euh, daan fa 50 cents 50 cents nag euh, retouram bi d'accord naa ci d'accord naa ci bien vrai que